majeur ban jàngat nga am ci loolu. xam nga question bi nga posé moom rek mënoon a nekk émission parce que daf ñu war a interpeller ñun ñëpp gis nga temps yi maa ngi nekk ci télévision yi di wax ci loolu moo ma gën a indiwaat sax te jii ma ñëw wuy ci seen invitation bi mooy dafa waxtu wi dafa jot pour que ñun ñëpp ñu jóg wax ku waxul rek yaa ngi yàq parce que réew c'est comme si bu ñu nekkoon en guerre. fii nu nous sommes en guerre contre les ennemis de la démocratie te ku ci nekk war nga pour xeex parce que liñu ñu liggéey ba mu agsi fii war ñu bàyyi boo ñi nga xam ne bi indi désordre bi Sénégal matunu 40 personnes te ñi ci gëna actif bo len xolé gën ci reuy lambi nek ci plateau de télévision matunu 10 donc warñu nongo ñooñu ñoy jël en otage le pays ba bëgg fi indi ay violence bëgg fi indi ay remise en cause bëgg fi fexé ba ñu ni légui conquête pouvoir que nous koo am par les urnes par le respect des institutions et des procédures d'unité pour FALNIT que les violence verbale violence physique non respect des forces de défense et de sécurité non respect de la justice saga, cassé, forcing je pouvoir ça c'est lamentable pour un pays comme le Sénégal Quand on histoire sa démissionnaire tu résigné man suis du ma démissionnaire damaa liggéey ci réew mi du ma bàyyi kenn yàq ko parce que sama bopp laa koy defal defal ko ñëpp defal ko samay doom defal ko sa doom yow lépp li ñëpp bokk bu naree yàqu ku ci nekk war nga cee jouer su rôle processus démocratique dañoo wax ay règles soo dikkee da nga cee war a jaar buñ ci jalgatee dañ laa wax la nga war a mën a def kenn amul droit di dem di mbëkk ay policiers di dugg ci direction des élections Nous devons perturber di traiter ces fonctionnaires là de tous les noms d'oiseaux au niveau du président de la république il faut qu'on respecte la séparation des choses Si dikkee déposer ce liste Nous, wala ci dara wax la recours au niveau de la justice avec ces arguments justice tranche. Nous, opposition bi muy pouvoir bi euh, justice tranchée, nous verdict c'est liste invalidé on nañ ko fi ñu dem justice raison ñoom dem nañ fi élection gagné ko justice moo moom moo wax ne gagné nañ perte loo parti au bi parti au pouvoir bi aussi def na fi ay appel ñu débouté ko konk loolu mooy processus démocratique te ñëpp dañ cee war a tënku pour que ñu mun a dem. am na nag beneen aspect bu fondamental ci li nga aspect vie politique gu Sénégal bi nga posé ca man tey jii il faut ma wax si nii ñi ca yàgg naa koo wax peut te que tey laa mas a toog ci télévision bu koo développé gis nga Timéra. Sénégal fi ñu ko yàqe mooy bi ñu si jëkkee théoriser ca kooku nag ñaari ndem si yàlla yàlla na leen yàlla yërëm ca yeexe ñu moo doon sama cousin Babacar Touré ak le professeur Doudou Sine yàlla na leen yàlla yërëm. affaire coalition yi quoi. ñoom ba ñu fi théoriser la notion de consensus booba dañ bëggoon a rapprocher le président Wade et le président Abdou Diouf voilà la question de de l'entrisme du du ci du gouvernement Pour l'élection de nga dem eh, eh, avec le président Ablaye Wad. c'était bien parce que on était une démocratie de confrontation Faire nekkoon fexe nous ñi intelligence pour nous pour nous pour réew en respectant les choix des uns et des autres pour avancer la démocratie et c'est à encourager

au-dessus de Tchernolo ou au-dessus d'un autre membre de la coalition teguñu ko fenn parce que ça veut dire que ñun dañoo nekk ci biir en tant que parti respecter discipline de coalition suñuy nit di voter les maires qui ont été reconduits bu ñu jëlaatee ay député ñu wote waat leen te ñun dafa ñun ci liste jiitaluñu te bu ñu député yooyu falu ak maire yooyu falu mais nous la considérer considéré comme des porteurs de voix déjà ca xola ñooñu ñun ñoo leen woteel suñu demoon seen trou bopp ak seen trou parti kese oui, nous avons 10 personnes nous avons 20 personnes benn bokk yaakaar nous leen en tant que coalition mais nous dem personnaliser le débat Nous avons ci ay partis. ba nga xam élections mais ils vont nous juger comme des gens qui ne peuvent pas gagner des élections qui ne sont pas représentés. alors que nous ñooy fal ñun président de la république par nos manifestations par les mots d'ordre que nous avons donné nekk ci terrain bi def ci suñu sur suñu capacité la même chose moom la ñu faire élection locale yi je lañ nar a députée. élection député yi te nag gis nga nañu bàyyi wax ne benn nit ak partie, parti gagner. parce que Simera vous porté un projet wut say parrainage nous joxe sa caution yor sa programme commencé des campagnes, mais élection présidentielle rencontre benn nit la le peuple bu ñu xoolee ne Timéra gi nii déglu naa ko pendant 21 jours porté na programme mais booy jël bulletin bi Timéra moo ci nekk nga dugal ko ci urne bi Timéra mën naa gagné élection yi devant des des des des coalitions nañu bàyyi loolu benn nit mën naa présenté wu fii gagné élection yi parce que nit ki la gars yi di voteel ak programme bi mu am tant que nag génnewuñ ci bopp nit ñi ay coalition kese kese kese da ngay jëm ñëw fii dugg ci biir piège boobu Nous xam nous ñuy xool yoruñu dara lu récépissé ñëw ànd ak yow ne def coalition di la imposer ay forme de gouvernance su réew mi amuñu compétence yi parti lan yor ak seen nga jël ñu encadré la ci benn piège soo élection yi ngay poste yi ci alors que am Sénégal yu ne fi ne nañ am ay compétence da la dañ les notions de coalition ngay régler lépp ci biir coalition bi ministres yi lépp ci biir coalition bi nga koy jël loolu moo indi chantage yi loolu moo indi wor yi loolu moo indi pression yi te loolu nag dañ ko war a dindi il faut que les gens xam ne mën nañoo demal seen bopp nekk candidat à l'élection présidentielle buñ paree am liberté duñu am pression opinion ni pression du groupe dañuy xam ne sénégalais yi ñoo leen wóolu ñu tànn ñi fi nekk mën a liggéey pour jëm ci kanam

de sortir du lot wax deug assumer ko bu yàggee dana fay man nak la fasiyene def deug gi wax ko luy defar wax ko parce que les Sénégalais yo xamni ni ngi may yi le ministre bi continuer tôt ou tard nit allons nous regrouper pour faire bouger les choses.